mbokk yi dégg ngeen fii produit sexuel bu ne waaye ngóor a kàttan moo jël ndam li moo jaaxal ñépp waaw ngóor a kàttan li tax mu jël ndam li mooy dañu ko defaree à base de jinjeer petit cola bisaab ba ci reenu senjeen waaw ngóor a kàttan dafay fàcc lu jëm ci wàllu ballonnement de ventre wàllu constipation maanaam seere wàllum faiblesse sexuelle maanaam da ngaa tëlee ngóor a kàttan nii moo ci baax ba noppi dafa lay jox appétit sexuel maanaam saa yoo ko jëlee da ngay am kàttanu sëy awra ba noo ko bëggee noonu nga koy defee mbirum éjaculation précoce nag moo ci gaaw maanaam bu fekkee da ngaa gaaw a yëg sa bopp di gaaw wàcc ngóor a kàttan mi moo ci gaaw li ci gën a neex nag mooy amul benn effet secondaire maanaam mun nga ko jëfandikoo te du la gaañ benn yoon wàllum douleur wàllum jabet wàllum sinusite nag moom kenn demul mu des da koy dindi ba mu set wecc lu jëm ci biir boo xamante ni dafay metti nag maanaam biir bu lay sonal boo ko jëlee daf koy nettoyer ba mu set kon nag mu ngi noonu képp bëgg ci ngóor a xamante ne wàllum kàttan moo ci mënti Sénégal. woote leen gaaw ci 77 169 13 13 77 169 13 13. kon nag nguur a kàttan mooy buuru produit kàttan yi. aja allahu laa ilaha illa huwa al-hayyul qayyum laa taaxuzuhu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi l-ardi man za lazi yashfau indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuhituuna bi shay'in min ilmihi illa bima saa wasi'a kursiyyu samawati wal arda wala yahuuduhu xisfuhuma xisfuhuma xisfuhuma wa huwa al-aliyyu al-aziim xool suuf ba xool asamaan ba xool weer ba xool jant ba xool doj ba xool géej ba sii bi yàgg Matar suba teel ak ñi leen encadré ku leen fi xool yàlla na leen fi baax ci barke Seydi Hadji Malick barke Xaadimu Rasulullahi barke Baye Seydi barke Cheikhou Tidiane bëgg leen mbay keñ leen mbay bëgg leen mbay yëkkati leen mbay jox leen mbay suñu xol yi kenn du xalifa mbay mbay menti di max naawo xalifaay lampi ngor pembaw xalifaay lampi ngor ki nga bëgg doyloo ko mooy ki ngor ki nga bëgg fonk ko mooy lampi ngor sëriñ Babacar Si mooy lampi ngor bàyyi sëriñ Mansooray lampi ngor loo mu tim la dangay lii la yàlla def mbay mi tiyaay di ma naa ah. <laughs> barki Serigne Babacar Si Malick te xamoon naa ne bu ma dikkee nii lay demee. waaw te xoolal nii la studio bi continuer hmm. neex nit ñi bëggee gudd fan wér. am hmm. jàmm. di ñu it sant yow. barki Serigne Babacar Si Malick yaay sama xarit yaay sama fils. dëgg la aywa jékki. le de la la doo père mooy def xarfa fuufa yi fii nii. waaw xool baay. Eh, gis baay xool asamaan ba. xool weer ba. Eh. xool doj ba. Eh. képp ku leen fu xool. Hmm. yàlla na leen fi ba. amiin màggat dama ko doon wax. moo doon taalibi Alaaji Mansour hmm. di suma yaay bi muy dund am na téeméeri at ak ñaar ak juróom benn weer. Hmm. te fu mu ma ko musaa waxee. bu mu jubee mbooloo su ma ko defee jàmm rek. loo gis studio bi su non déggoo li ma la. xanaa loo gis man li ma gis mooy. Euh, bala ngaa xam sa waay da ngay dem ba këram. Hmm. man de yàlla xam na ni. Hmm. bi nga naa ma ay studio. Hmm. man pour man benn genre panthère la <laughs> boo xamante ni dañ faa jël benn genre xaw ma man comprendre ma. Eh. mais yéen yéen si seen ngeen jël. waaw ah. nu mu demee nii. <laughs> mais sama gars yi ñun ñuy kaf ngeen di dóor ci bët yéen. suba teel fi mooy suba teel la musique. Ah. waaw. <laughs> waaye rek def ay xarfa fuufa. waaw xarfa fuufa yi lay def. am kii ah waaw solo. rajo loxo. daal ci loxo rek jiw. ayatul kursi. waaw. waaw jàmm rek. jàmm rek. waaw waaw. jàmm rek. ah loolu gëm neen ak neen nga ci génne. waaw te réew mi dafa toll foo xamante ni. Ah. ñun kenn du ñu yàqal. na leer suba teel bu jëlee ay millions def ko fii. Hmm. dajale jeunes yi. Hmm. def ci ñoom éducation. Hmm. fasal yéen a ak ñoom. dama ni dañ koy aar. barki Serigne Babacar Sy Malick. ca kaw ca kanam ci na ko suñu borom ko rek la yor. kese sama xarit Serigne Ibrahima Kunta moom Cheikh Abdou Khari Jeylaani du ma ko noppi di ko nuyu mhm. di nuyu Matar Subatel surtout ah. di ko wax mention spéciale Matar ak am fit mention spéciale yonent bi dégg nga ko ndax nee na ab ragal du am dara déedéet te lépp loo def ci àdduna wula nga di ko wax ci fit nga ko teg ak ngor mm. ak ngar mi mm. kon euh, Matar Subatel dégg naa sa affaire dégg naa la nga def. mais doxantoo seegoo de. ma ni dina ñëw. ñëwagoo def ci ñaan de. ci kàttanu damay dem foofu. faw nga def ñaan non mënut a ñàkk suba rendez-vous foofu la. fo jeex na suba suba rendez-vous allah suba rendez-vous incha allah incha allah foofu te studio bu bees studio ba loolu moom kenn musu koo gis man nag dama gis dama xaw a man faaw nga ñoo def ci ñaan man pour man benn poqus la rek dëggatalee am réew la daay daay da daa Matar yàlla na nga ko ci darajey Seydina Mohamed amiin du nuy waa Kër Salamata du nuy waa Sénégal mais du mm-hmm. nuy suma ministre mm-hmm. des sports mm-hmm. euh, Lat Diop euh, euh, Lat Diop te mbaa xam ngeen ni combat bii di ñëw ñun lañ ko tuddee waaw waaw Eumeu Sène ak Tapha te mooy premier shortem ci euh, euh, euh, ndomba tànk gi ñu ko takkal mu war a dem assister mm-hmm. muy Eumeu Sène ak Tapha Tine Sénégal loolu lañu xam te bu boobaa nga xam ni mm-hmm. billaahi tudde nañu ko bëgg sport mm-hmm. sport far di ministre sport kon yàlla nañ ci àgg ak jàmm li moom daal waaw li moom lañ ko jox non lañ ko jox parce li tax xam nga dañ ko jox GFC ñu naan non parce que ñoo eh, gis nga li yàlla def. ñu jël ministre ga takkal ko ndomba tànk nga far. Mm-hmm. barki démboo Ndiaye mention spéciale moom moo dóor Casa Sport. Mm-hmm. dóor yu mel ni. Tulle Male Tulle Male. yaa ngi dégg ah kon loolu su amee. Mm-hmm. tey ñu war a defar réew mi di yaatal. seet kenn ku ne la nga moom ñu jox la ko. gàcc ngaalaama. gàcc ngaalaama Baye Ndiaye gàcc ngaalaama Luc Nicolaï. parce nag. seen innovation doy na waar. li ñu créé fan yii. Mm. dafa mel ni ñu ngi dekkalaat làmb ci biir làmb. làmb dekkiwaat na démb. làmb dafa mel ni mi ngi dekkiwaat ci biir làmb ndax dama daa gis luur bu daa bëri. Mm-hmm. dañuy konor yi kalang kalang kalang ni sëpp baaraam. di mm. naxat làmb ja jeex na. Mm. waaye làmbi démb ji. mel ni espoir yuy bëri. Euh, kurpeñ yu mel ni mbàccum gerte. 52 secondes. déggoo ma de. gars yi de doyaluñu. waxatuñ sax waxu ay histoire rek ay day yàqook ay hmm. déedéet kon euh, ministre des sports hmm. yàlla na nga àggale ci li nga xamante ni si mooy hmm. bés bi la jox di ci nuyu Omar mbay bu baax a baax a baax a baax a baax du nuyu nag Abdou Khafour Touré waaw sunu waa ji DG Ségis dama dégg temps yi benn affaire bu muy créé Géejawaay xam naa ni bu sottee ñëpp dañ ci xaj mhm. mi ngi góorgóorlu jigéen mhm. ak askanam mhm. mi ngi def lu mu man macha allahu taala maa ngi koy nuyu te di ko jaar di ko jox wàcc waayam géejawaay géejawaay yàlla dafa leen defal lu rëy wallahi xoolal ñaata personnalité yu doxal réew mi ñoo fa dëkk billaahi te kenn ku ci ne géejawaay yàlla li mu leen defal rëy na de te xoolal président Lat Diop mii bi muy doon président bi ñu koy woowee président Lat Diop cinq communes yi fa ne amul benn commune bu mu yóbbul ambulance ak échographie gis naa ànd na maag moom mu yóbbu neuf échographie ak neuf ambulance hmm. ci gox boobu noonu hmm. Xafoor Touré hmm. côté noonu Alioune Sall noonu Néné Fatoumata Tall noonu waaye géej ay ponk parce que xam nga boo amee boo amee Ahmed dara maire de la ville mhm. nga am Lat Diop euh, ministre des sports mhm. Néné Fatoumata mhm. nga am euh, Alioune Sall nga am Abdou Xafoor Touré Xafoor Touré te des na ñeneen mais am na des ñi ma jàpp nii rek laa wax non mais am na ay mbere mbese yoo xamante ni ci biir ñoom ñu ngi ci comme kalaasu Aziz Ndiaye géeg yooyu ah, ah Aziz Ndiaye côté sport waaw <laughs> ñu ngi toj dëkk bi. Hmm? ku ci mel ni Pape Mama Fall. waaw kenn ku ci ne yaa ngi def effort boo xam. ak kii bu Sa Thiès nu mu tudd. Oh, Moussa Moussa Fall. Moussa Fall bu Sa Thiès. borom dawli ju baax ak borom dibiteri ba. ba ma jëmb jee. ma jëmb jee borom dibiteri ba eh. dibiteri ak ak Malick Gakou Géejawaay. ak Malick Gakou Géejawaay xam nga ñun. Géejawaay yàlla sedd na leen. macha allah yàlla fàttewu leen dañu am dañu am mille sens. moo tax nag Géejawaay war a war a war a gën a développé nag. voilà waaw lu mel noonu bu amee Géejawaay. Mm-hmm. wax dëgg yàlla mm-hmm. war naa dépasser fi mu toll nii. mais léegi daal maa ngi leen di éviter te te aussi. bu ñu fàtte mukk ne. Mhm. Alioune Sall am na fu mu fekk géejawaay. am fu ko yóbbu. laa ilaha loolu moom waa géejawaay ñoo ko waxal seen bopp. loo bañ lëg ni ak am na fu mu fekk géejawaay mën a daaw am na fu mu ko yóbbu. waaw léegi nag Ahmed Aïdara aussi. Mhm. am na fu mu fekk géejawaay. Mhm. ñu ngi xaar mu yóbbu ko feneen. keneen kuy ñëw aussi noonu keneen noonu parce que. continuité état continuité la. léegi nag ki nga xamante ne mooy Lat Diop. moom ba muy defar géejawaay boobu du directeur. déedéet LONASE du ministre. waaw yàlla dimbali woon na ko. Mhm. mu am as tuutam. Mhm. di ci jàpp di defal mhm. waa Géejawaay. di defal waa Pikine. waa Parcelles. waa Yëmbal. waa uh, Xurunaar ba Touba ba Touba. waaw donc kooku tey bu yàlla defee te mu nekk ministre des sports. gis nga ñun. bu ñu jàpp tagg ministre de sports yeneen dëkk yi di bàyyi suñu ministre yi. ñun. nañu tagg suñu ay nit ñu am. dëkk la nañu tagg suñu ay kilifa ñu am. nañ leen jàppale moo fa dim ñàkk nañu tagg suñu kilifa yi way parce que doo dem ci beneen dëkk mu bañ tàggale sa kilifa dëkk kon boo amee sa kilifa dëkk mhm. da koy fonk mhm. nit mhm. loo ko bañ bañ bañ nangul ko ne mun na liggéeyam wallaay dëgg la wax dëgg yàlla jóob nag yàlla mu ngi koy suturaal euh, te bu ko neexoon dem toog këram jàpp ñaam te li ci gën a garaaw mooy da nga wax loo xamante ni yow man dama laa xaw la ñime sax ci yenn côté yi parce que Lat Diop ba muy doon dara billaahi wallaahi taala pen bon Lat bi ma koy xam du tey c'est-à-dire ah, xam nga xam nga musuñu toog musuñu toog nii musuñu daje mais su ma juumul. 2011. Mm. waaw loolu yàgg na 2011. xam nga lañ ma njëkk a waxu Lat Diop man sama benn yaay bu dëkk si cité douane. Nations Unies yaa ko xam pire mu ne ma. sama benn góor dafa nekk fii di sama frère ma koy jàppale dee ko tudd ci rajo yi ak télé yi. boobu kenn xamul Lat Diop. donc nit du forcé. man forcé wu ma xam Lat Diop. aw ma numéro euh, téléphone musuma wax ak moom. mais sama yaay boo dafa ma yàgg wax Lat Diop Lat Diop moo tax bi ma gisee après bi affaire ubbeekoo ku ne di wax Lat Diop ma kon kii laa daan wax 2011 di wax ci moom te boobu kenn xamu ko. waaw ayca go. jërëjëf sant yàlla julli ci yàlla Mouhamed am contentement ak mbégte ma bëggoon nag suma doom Sidi Diop xale bu baax ànd ak ménageur am jékki tey ñu am bés bu rëy muy monsieur le ministre Lat Diop ñu tuddee ko combat bu mag ci diggante Eumeu seen ak Tapha te ñun doomu banlieue lañu amuñu ku dul sunu ministre doomam a ngi nii ménageur am a ngi nii. ñu bëgg rek mu am kàddu yum ci sànni pour le. Euh, douze douze bii di ñëw ñii. ñu xam ni banlieue bi ñoo xewle ndax kenn du monsieur le ministre Lat Diop Mbanjo Mbathio Sidi loo wax. non kooku ñun ñoo koy gunge. waaw waaw ndaxte ñun doomu banlieue lañu. di doomu géejawaay. ku ne xam na monsieur le ci ni mel ci doomu banlieue yi rawatina géejawaay. Mm-hmm. donc bu ñu ko tuddee bis bu toll noonu. Mm-hmm. donc yoon la. yoon la ñun ñëpp ñu tax ko dem gunge ko monsieur le ministre. dimanche incha allah ñun ñoo lay gunge. dem seetaan làmb Eumeu Sène ak Tapha Tine. parce que liggéey nga ko ci réew mi. te nit ku baax nga nit ku ko jar. te bëgg Serigne Touba. Mm-hmm. bëgg Serigne Saliou Mbacke borom juróom borom njàpp ndal xambaam. Mm-hmm. yow jàmm rek ngay am. tey ba dimanche incha allah. la ilaha illallah.